de presse. El Hadji silmaxa yi nga xam ne kon dañoo am baccalauréat nekk ca diwaanu Kees ga sol nañu démb ah tribune yéene kay ne ñoom dee dañu doon organiser kon benn ñax ñaxtu waaye kon mbir ma daa mujj yàqu parce police ba ca boppam kon moo leen jàpp dóor leen ba ñuy bëgg dee te ñoom silmaxa yoo yee ci diwaanu Ndakaaru kon la ñu doon bëgg a dikk ngir gis kon président Macky Sall xam le nag mooy ñin daal ay silmaxa lañ am baccalauréat université yii bëgguñu benn ñaar ñu bëgg a nag am kon ab mbindu dem kon ca bitim réew am tam bourse ngir yeggali kon suñu njàng ma le ñoom silmaxa yoo yee hôpital kon la ñu mujjee ñoom silma xëy te ñu am baccalauréat ci Walf Grand Place ne police bi ay reykatu nit leen ay assassin lañ i la ilaha ah maa la wax lii biri ma ci tribune yéene kaay ne li ñu gis daal ci policiers yi jàpp kon ay étudiants yu doon amal doxub ñaxtu ci suufu jant bu saf bi di leen caxa-caxatee lam ñuy fàttali daal soriwul dara ay manifestation yoo xam ne kon nit ña dañ leen di jàpp kon dóor leen ba ñuy bëgg a moom la Abdoulaye Wade kon jëloon ca nguuram ga def ko kon farata rek cosaan aada waaw waaw ba bi nguuram gi kon di waaj jeex nii diggante ñi nga xam ne kon ñoo doon manifester attaque der ya njaw lee doon way kon am ca ñoo xam ne am yoo xam ne miti miti la allahu akbar ministre de l'intérieur bi nga xam ne kon a moom la nit ñi nekk nii mën a kon yàgg yaakaar sinistré kon amatuñu ko le populaire ne diggante sàngalkam ak bayaax waaw foofee day la nguur gi kon teg bët ngir yóbbu fa sinistre yi nga xam ne kon ñoo loru ca wàllu mbënd ma maa la wax lii lan moo tax kon ba tund woo wee ndox ma kon dëju fa bu ñu sukkandikoo nag ci chef de village mbéy ca Mbambilor Abdoulaye Ndiaye la nee na boo leen gisee kon fii ndox mi dëju fi maanaam ay déeg ak i dex ak ay bërëbu bayukaay di ay ñaay ñoo fi nekkoon laataa maral gi kon di fi jaar di sa sëris ba la sala yéene kaay ne sinistre yooyee nga xam ne kon ñoo loru ca wàllu mbënd ma lu ci tolloog ñeenti téeméer ak juróom fukki junni ci ay doomu aadama danañ leen kon tuxal jox leen ay dëkkuwaay te dëkkuwaay yoo jee ñaari junni danañu ko defar diggante Ndakaaru Njaay jël Jóob gi ak yi nga xam ne kon ñu ngi nekk ci biir Omar Gueye ministre assainissement ci tribune yéene kaay ne programme fukki at yile danañu ko door ci daar daar ji kon weeruk février 2013 bii di ñëw jeexal ko weeruk juillet ba pàcc gu njëkk ga la waaw waaw te programme boobu bee bu njëkk ba lu ci toll ak juróom-benn fukk ak juróom-benn ci ay milliards danañ ko ca def waa Ouest Foire bokk ba FICES bokk nañ ca Grand Yoff ba bokk na ca waa banlieue ba Dakar na ca Bambey bokk na ca Touba bokk na ca Omar ca ndaxte nee na lu ci tolloog ñeen fukk ak juróomi junni ci ay njaboot danañ leen déplacé jëlee leen ci tund yi nga xam ne kon daa am ndox ñaar fukki junni yëpp waa ndakaaru njaay lañ waaye nag jàpp leen ne kër yoo jaayee kenn du ko de c'est pas gratuit de ah waaw waaw Walf Grand Place ne programme Macky Sall bu bees bii yayul waa ginnaaw raay noor yëpp de convaincre leen de déedéet ma ne lu xiwul seen bët maître El Hadj Diouf tamit lu xiwul bëtam parce que avocat bi ci la déet waaye maître ah kay man maître El Hadj yow jël ay nit xol leen rek dafa jar at yu bari yi xanaa Macky Sall moom xamul ne juróomi atu yàlla dong lañ ko fal téeméeri milliards laa ne doy na kon ngir tabaxaat ay kër maître El Hadj Diouf yamu ca ndaxte nee na Macky Sall ak waa kër Abdoulaye Wade di libéraux yi benn lañu mburu foofu ko fëriñ ñoo bokk benn famille benn lañ waaw rupture gi nga ne nag moom lañ ci nekk di ko tiitaroo naan la woon woon ni na ñeng ñeng ñeng patiti patata rupture la ñu bëgg dugg na fi a fi loolee ne daa jékki-jékki rek ne bàcc daal di kon toj ca digg ba ah maître El Hadj Diouf ne balaa ngay santaane sangu day fekk ngay ragu ba nuppi Macky Sall fa mu war a doore mooy nit ñi leeral leen fan la jëlee alalam ba nuppi dooga jublu nag ci ñi nga xam ne dañoo am alal goo xam ne kon jaarul ca yoon koy waay loolee enquête la laaj libération kay ne enquête bi nga xam ne kon doon nañu ko def ci projet de promotion des investissements privés Aminata ñaan na kon patron wu procureur moom mais gars yi duñ ko freiné téye ko ah waaw a a déglu la la ko te jeyeene kay ne Cheikh Yérim nag njàqare kon la àndal ci ëllëgu ay bi daal la war kese lay def kon ca mbir ma kese Cheikh mi mi ngi ca kaso Dakar Cheikh bee ma nga ca kaso Thiès Cheikh bee co le au quotidien ne Serigne Cheikh Saliou Mbacké Balla Aïssa moom day jàkkaarloo na démb ak Cheikh Béthio Thioune allahu akbar waaye procureur ba day kasowu Thiès be ah <laughs> daanaka da koo wër ndomba de waaw waaw sorxo sorxo moo mënu foon a am renseignement généraux yi mel ni tullek màlle yëngu waaw waaw te loolee yëpp la ko jur nag mooy jabaru Cheikh Béthio Thioune bi nga xam ne mooy Adja Déthié Pène bi mu ne mes ba dugg kon ca biir kaso ba réew mi quotidien ne gaa ya te nañ de waa PDS ak réew mi bu Idrissa Seck ah ña yore Cheikh Tidiane Mbaye pare na Sonatel alternance kon am na ca direction général ba Cheikh Tidiane Mbaye ah connecté na Alioune Ndiaye moo koy wutu imaam ba boo sàgganee ñu ko wutu tribune yéene kaay ne imaamu jumaawu Abbas Sall bala ci ndakaaru gi na ñu ko loxo marte itali laa ilaha illallah ngir wàllum njuuj njaakoon ci ay mbirum or xaalis ba boo ko xaymaa téeméer ak ñaar fukki million la mu ñuy fàttaliku kon mbirum Tayib Socé mais nekk ca RFM a 2 tey mujj nañ koo bàyyi ba tey te imaam bi kat ci njaboot gu baax la ne dem naa ca làmb ja suñu làmb ne ëmma seen day wan na kon ginnaaw mbër yi nga xam ne nee nañu ay VIP lañ ëmma seen ne waaw man daal gisuma sama bopp kon ci seen association boobu bee jiital taay si nga yemu ca nee na pareegul de ngir bëreel kon kii lig ni ko laaye waaye pare na de bu dee Yékini pare na ngir bëreeg moom yéene kaay gi ne diggante Baye Mandione ak baayam sa yàqu la jëm maar tey taali waaw parce que Baye mooy ay xaru tabaski le pays au quotidien ne xar yi njëkk yi day tàmbale nañoo yegg ci ndakaaru gii waaye ñi nga xam ne nag ay jaaykatu xar lañ daal la ñu xam le mooy xaru tabaski kon ci at mi daa nar a manqué de laa ilaha illa allah daa nar a manqué maar détaali maar détaali <laughs> alaaji <laughs> ñun dey rey mu deeg reyul mu dee sax bëgg nañ nay xar rek sama yëre